على حضركم أعبدوا ربنا bila sam di bëgg xale la mala xabarul aw budu rab bila sam di bëgg xale la aywa mala barxum bilaay aw bi ma liir ku neetar xale la waaw maala la sandi bëgg xale la cofeelu ndaw day day dëgër bi ma lay bëgg gone la maala barxum aw bu أنا الخليل ما لا أبرق أو بدر خليل ما لا أبرق أيوة أو بدر سلام يا وسل مامور لا إله إلا الله بقوم دكتور سيد الحاج مالك ينعمني بملين دي بقى boobu xamaguma luy bëgg bi ma demee ba xam bëgg ngeen gën a dugg ci sama biir xol bi ndax seen maam Seydil Hadji Malick ndax sa jikko maamur ndax sa melokaan ndax sa xam-xam maamur ndax sa dëddu àddina ndax sa gore ndax sa tabe mamu ku soxor du dedet ku ingan du do lu du gërëm te man bëgg na lu ma nit defal bu nu dajee bu mako fatali ko wax ko biñ may jox rojo xale la suma jugi suñu kër ñew ci araka ñi nan auto ya ngay dem wa daayira bi nan su auto yi demé sax duñu téré déglu sam ni tok ma len di bëggal kon yow bi may jàngloo xalé la bi ma daan way daf ma daan jox ba lim ya jeex mo ci pocham ay carte crédit di jël sama téléphone di ko ci dugal boole kook lu ma xam mu bind jox ma ma sangu lo xam bind jox ma ma loo xam bind jox ma ma naan maamur loolu duma ko fàtte loolu duma ko fàtte nit bu la defalee lu baax bu la bayre bi jàpp mbaa sikse mbaa bës ba nga fàtte ko soo ko fàttee doo gor li ma defal duma ko fàtte maamur wax ju xaar lu ne bis lay xaar wax ju baax ju ne bis lay xaar jëf ju baax ju ne bis lay xaar xëy na bi nga ma koy defal danga nga yaakaaroon nga ni duma ko wax waaye xale waaye xale du fàtte loo ko defal du ko fàtte loo ko lebal du ko fàtte li nga ma lebal faw ma fay la ko ma aywa ana waa araaka ku fi gën a bëgg Serigne Mamour si jugal taxaw nga ñëw ci mun jox ma loxo ni ma man la lii bisu araaka la dama doon bàyyi ba sa sopp yëpp daje ndax yàgg nañoo daje mbuur waaye buñ daan daje day fekk dajja ba ñeneen dajaloo daje ko wooma waaye tey say njaboot ñoo dajaloo dajale nit ñi wooma ni ma kaay bégal ñu may yoot rek xamoon naa ni naa la jàpp xamoon naa ni naa la jàpp maamur xamoon naa ni naa la jàpp maamur nit boo koy waxal lu baax danga koy wax ci kanamu soppe maa la doon yoot xamoon naa ni naa la jàpp maamur jëf ju baax ju ne bis lay xaar maamur mala ay waay aw budoo Pape Samb seede ma tey la sant la yow Mamour ma la سي مامور ما لا حبر قل أو بدور الظلام مامور ما لا أو بدور حسين آسي ñëwal sant le ma maamur ma la xabar xul waay alaaji Malick ñang kay sant la ma sëñ Mamour waaw ma la aw bondo loolu moom xam naa ci dara waaw waaw alaaji Mamour Samb am na ngërëmal si Mamour mala xabarkum aw bodorom serigne Mam Mor Samb yalla na kawal aljana bi muy génn àddina biñ ne suba lay génn àddina daf ma wor telephone billahi nima yow sam maniko me serigne bi tane nga dañu yebante won nak yalla xamna ko mu ne ma dama bëgg sama programme yi ma am yépp ma tek ko sa loxo ndax damay bayyi way wallaahi lazim biñ ma ko tàggee dama doon reetaan ndax damaa tiit ah mais ku woo maanaam ci suba gi xëy woo la ni ma sama programme yëpp dama bëgg teg ko sa loxo ñi ma daan programme am ñëpp ma boole la ak ñoom ndax damay bàyyi way ñu fanaan yeewu ñu tàggee ma ko oh. yàlla na yàlla kawel àjjana يا شيخ الحاج عبد العزيز مالك الله تعالى عنه عبد مولاه ndigal mooy la gën def leen nga ni ci ngeen bàyyi ay tere دفلي ورب الخلق دوغيس خدم بغل ديغل ديغل ديغل واو سيرين منصور بروم دار جي نينا ديغل سو ماني ديفال soo mënul defal xalxa defal si mani ne ndigal mooy la gën def te ngeen bàyyi ay tere doo gis xadan mbugal lékk ko deful ah, la ndigal mooy la gën def ndigal mooy la gën def leen ay tereem ku def lii wa rabbil xalqi doo gis xadal mbugal koo defal nag فلا تامنوا مكر الحكيم إلى ينام aminu makrillahi kooka koo xamoon xanaa xamoon yenn say nit firi alquran nga yaakaar ni daan ko ñu xulul ah de waaw yenn say nit jàng xasida olof bu leer nañ ñi nga yaakaar ni daan koy xulul wallaahi wala olof la maam du bi sëñ Mamour su ma bu ma meree nit <laughs> damay xool fa fa fa fa mer ma toll rek ma jël foofu su ma gisee ku ma mere nga rëy su ma jàkkaarloo yow ci tànt du ma la wax dara damay jàkkaarloo yow rek ba pare dama naan kay nga la na ah. yi ak sa jaadul rek alal xayr

ku sopp da baax Malik tanal kullama tahwaaw yoon waa ngi yow dawal su ma gisee bu ma di jóg jóg ma ma jàpp la mbaa lu ñutu sama ayib bañ wax ma ma dama lay woo ba nga mën a toogal fi toogal fii nga toog ma naan la bu leen gëstu mbootu nit ñi yéen ñii bu leen ko def dafay jur mbugal moo xam ni di su melal kazaaka kañaan teet leen ko day lekk seeni jëf kama taakulu naaru asiisi axi dawal bu ñu nekkee bokk xaalis nga lekk xaalis ba bàyyi ma xam nga loolu lekk xaalis jàmm riba am na waaju ma ko mos a def kilifa ko siiw jamonoy corona bi ma leen am ñu ma daan gàmmul ñooñu jox ñu jox ma jox ma xaalis mu lekk xaalis ba ñooñu woo ma ni ma diw jox na la xaalis ma leen jox mu ko de ñu ne nañ ko woo man leen déedéet bu leen ko woo dinaa fay ñu daje ci tudd ñu daje ci tudd ma ñu kaala ko mu war doom ja ma ñëw rek tiim ko naan ko na riba nan ko yaa ngi dégg na riba ay waay ah. nan ko sama maam abdou mo wax haram na riba qawmi kitaban wa sunnatan wa akiluhum man منهج الحق قد عدل sëñ Mamour am na xale bu jigen bu ma mos a bu siiw di critiquer sama way te kat day xeesal qasida bi may way mam Abdou wax na ci lepp ndaw sa day def ci vidéo ci internet bi dudd sama tour bi yakama lu melni ketel yalla yàlla nattu ko mom conférence mbotay gamu jité won ni ko ñooñu biñ nee ma dañoo bëgg nga conférence ak ñun diw moo koy présidé dama leen bu leen ma jox pass dina ñëw ndax bu ko tontu rek conférence ba jot man leen wulan rajo yu baax ñu wut ay rajo yu baax ma ñëw jàkkaarloo ndaw si ñu wutal ko fauteuil teg ko ci wetu taabal ji nii mu jàkkaarloog man su ma defee nii moom lay jàkkaarlool bu defee nii mën la jàkkaarloo ماركو أني سوتنا واتركنا خيسل فإنه يغير خلق الله تجل كن دخن وردي كفيل نانكو أني سوتنا يجي نسنك أدينه واتركنا بايلن خيسل خيسل ما يوم أني سوتنا واتركنا yiwayu xalqillaay teet leen ko ndax gënul naan ko nii bu leen soppi bindub yàlla naan ko ngeen toñ yàlla bàyyi leen ku toñ yàlla doo raw yow ani durmi yow dawal naan ko amareem ah, na ma ndeysaan yëngatu ci internet bi asi dia. rek li dam xare bu moy andal yoni ko mu wañ waaye bu ñom gam gi nekkat legi mu yoni ndigal moy la gën def te mo xamna jangi du yag nak seen bi tax tingin bay ay tereem ku def lii wa rabbil xalqi doo gis xaral Cheikhu Tijaan moo ko seddala laa muy tedd wala yooyu ihatatika minka ilayka la ko jox ay waay Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane hey Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane ku fi gën a bëgg Mawlana Seyd Ahmed ak kii daani juba taxaw nga ñëw ba ci man ni ma man la ضمانت وو محمودة لسوالك طريقة محمود أطبها المجامع شيخ الجديان وانا تعلم شيخي ايا لائمي لم تسليمه وعقله تعلق في فيز وما هو سامع وهنا أراك أمر تيجان شتيجان سليم فما الحق حقا مبلغا حق قدره به بشر لا غير والفيض مانع شقيجان شريف كي سين باب سين باب كل لا خلاص شيخ شقيجان حما اهلو بالشكر حق حمايه قبيل رجوع للي وراء تحير إبليس أباليس خيبة وقد عزه البطلان بل هو عالي شقيدان بولم وليين بولم وليين نونا لنك يلا بباخ جنوبا جاينتنا أك Cheikhu Tijaan bul xas wulliw bu koy gaaral bu koy doyadal waaw yàlla la lee mu sànni law saan Cheikh Tijaan yeneen ba tàllal na baaraamu digg ba ca di wax ci sa ruu ak ruu am lu kéemaan Tijaan yeneen ba nee na warlul naa la ku la gëm te am te pas bu deewee tabiridwaan Cheikh Tidiane seru gi mooy tëbb yi xam-xam yu yaatu yu ak ay wilaaya ki may yow Cheikh Tidiane seru gi mooy tëbb yi xam-xam yu yaatu yi wërsëg yu sell yi est-ce que Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane ba nee yeneen ba nee ku nay day dànd aljana ak mbindéef yi ak yàlla ñoo ko kandi niiraan Cheikh Tidiane naag naari tabe jege naag ñur yàlla jege niñ jege jannaat ridwaan Cheikh Tidiane ka sax bu fekkoon du yow ay nawet du fi am ay njariñ di fi feeñ yow Cheikh Tidiane damanatuo mahmudatun lisawalikin dari kata mahmudin natara ya, Jamu, Syekh Jam Syarif digluna du cinjal ay petak ci garab ni tawat na na dil am litil moko kef mi pitak nan ko ndax maro tarwa ko ray mi pitak nan ko man khajuma wolu maf mi di way mi di jooy gurgutu gurgutu soomun fatxu doo ca xam aw xaraf yaa seeko ahmadu tijaanum nu salimina cofeel gi dimb la foofe waa di noxmaana Cheikh Tidiane cërib yaay ki ci toog Cheikh Tidiane gurib yaay ki ko moom xat mi moom Seexu Tijaan sama bi yaay ki ci fees fekkee am na ko fi Cheikh fees taxaw néew ba ci suñu xol yi yaay ki ci fees mbégte mi billaay may bég di a sa si njaama abadan man awma cheikh ku du yow li may tilim tilim yaakaar na ala tijaan ay cheikh tijaan sarax ma jàpp ma jàppal ma te jàppale ma tey ak bul ma seetaan cheikhu tijaan nga fóot ma laabal ma bellil ma dégg agale ma jërëjëf amiin waay Cheikh Tidiane sunu xol yaay ki ci fees mbégte mi yaa nu gësal billaay may bég di bégle a Cheikhi Cheikhu Tidiane sas njaama ngi abadan man aw ma ku dul yow li tilim tilim Ya karna lat na ko ñep wax ay Cheikh Tidiane sarax ma japp ma jappal ma te jappal ma te talat bul ma seetaan Cheikh Tidiane nga ya, foot ma bal ma bindil ma dengna na ma ñi ziar ñëpp